bismillahi arrahmani irrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaq naasir ilxaqi bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci umra suñu bindu tey mooy définition baat bi di umra ci làkku yaaram ak bu ko sharia tuddee gannaaw ga lanay atteem umra ci làkku yaaram mooy ziyaara li ñoo tuddee visit ci sharia nag mooy ziyaare néegub yàlla bu sell ba ci anam gu particulier te anam googu mooy jaamu yàlla giñ xam dale ci xarmal lambu talbiya muy labbayk allahuma labbayk teg ca tawaaf néegub yàlla ba dox diggante safa ak marwa watu mbaa wàññi kawar lii mooy umra mbokk yi moo ana luy atteem boroom xam-xam yëpp daje nañ ci mashruiyatul umra ne umra lu ñu yoonal la ci lislaam ñoom ñëpp daje nañ ci réyu ngëneeli umra te daañ ci dikk ci dar yi di ñëw moo ndax umra dafa war ni aj waree wala sunna yonantu sallallahu alayhi wa sallam la gu jaadu ñëpp fonk ko ndax ku doyadal sunna yonent doyadal farata yàlla aj ndax lu war la te su fekkee lu war la ku ko mën a def def ko sama borom tabaraka wa daf la cey bindalub yool waaye ku ko mënta defu ko sama borom daf koy bindal bàkkaar mu yeewee ca mbugal su dee sunna la képp ku ko def roy nga yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te sama borom dana la bindal yool bu réeré ku ko defut nag yiwu rëy faat na la waaye yeggoo ci bàkkaar nag ñaari position ñoo ci am ci boroom xam-xam yi bu njëkk bi mooy ne umra farata la ni aj nekkee farata te loolu mooy position imam Shafii ak imam Ahmad ci li gën a siiw ci seenum ngir ñu ne war na ci bépp kallaf bu ko mën benn yoon ci dundam wax ji la imam Buxaari tànn naka noonu mbooloo ci ñooñ xadis ak ñu dut ñoom ñoom seen position mooy umra farata la te bokk na ci seen tegtal yi xadis ji ci ibnu majata de aïchatu radiallahu taala anha ne dama wax yonantu sallallahu alayhi ni ko ndax jihaad war ci jigéen yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne alayhinna jihaadun laa qitaala fiihi alxajju wal umratu jihaad ji war ci ñoom xeex amu ca mooy xaj ak umra al imaamu nawawi ci majmuuc ne isnaadu xadis ji wér na ci shartaay buxaari ak muslim ana lu ñuy tegtaloo ci xadis ji ne umra dafa war baatu alayhinna ki ci dikk ala tufidul wujub boo ne kada wa kada mooy nangam nangam war na la kon ala alayhinna gim wax mooy wane ne dafa ñaareel bi ci xadiisu jibril ju siiw ji bi mu laajee yonentu sallallahu alayhi wa luy lislaam luy liimaan luy lixsaan laaj ko bés penc ki dikk na ci riwaayatu ibnu xuzaymata ak daaraqutni jëlee ci seydna umar ibn alxataab radiallahu anhu ba muy tudd ponki lislaam ya mu tudd umra ànd ak aj al islaamu an tashhada an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqiima alsalaa wa tu'tiya zaka wa taxujja albayta wa tactamira ci riwaayatu bi daf caa yokk umra wa taxtasila min aljanabati wa tutimma alwudua wa tasuuma ramadan dar xut ni mu ne isnaad ji isnaad bu sax la bu wér la ñetteel ba xadis ji nga xam ne ahlu sunan ak ñu dut ñoom ñoo ko soloo waa fit ja dikkaloon yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi ne ko sama baay dadi mag mënta ajal boppam mënta umraal boppam laa yastatiu alxajja wala al umrata nee na yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ko xujja an abika wa'tamir na nga ajal sa baay te nga umraal ko xadis ji imam tirmidi déclaré ne ne wér na sayidna eh, ahmad ibnu hanbal nee na laa aclamu fi ijaabil umrati xadiisan ajwada min haada wala saxa minhu xawma ci luy wane ne umra dafa war xadis ju gën rafet ji mbaa xadis ju ko gën a wér ñeenteelu tegtal ci ne dafa war mooy xadis ji abu daawud ak nasaa'i yu solo jëlee ci sabi ibnu macbad asubay ibnu macbad <coughs> nee na man dama doon kaw-kaw boo xam ne ci diinay nasraaniyatu la nekkoon nee ma dikkal seydna umar ne ko yow man dama dugg ci lislaam ma fekk ne aj ak umra luñ farataal la ci man maktu bayni luñ bind la war war ma ah ma xarmal leen Seydina Omar ne ko hudiita li sunnati nabiyika sallallahu alayhi wa yow de jubaleef nañ la ci sa yoonu yonantu alayhi salaatu wassalaam ñuy wettalikoo it waxi yàlla jëm ne wa atimul xajja wal umrata lillahi ci ne xaj dafa war ñeenti xadis yi ak wettalikoo laaye ji lañ tegtaloo ñaareelu position mooy ne maanaam ñu ne umra dafa war ñeenti xadis yi le ak laaye ji ñooy seen ñoom lañ tegtaloo position ñaareel bi nag mooy ñi ne umra sunna la te loolu mooy position imam Abu Hanifa ak imam Malik li ëpp ci boroom xam-xam yi ak ak am na sax riwaaya bu jóge ci Shaafi ak Ahmad donte ba lee ko gën a siiw mooy bu siiw ba ci seen madhab am na riwaaya buñ jógee jëlee ci ñoom juy wane ne sunna suñ fonk la ne sunna suñ fonk la mooy sunna su feddaliku la hmm, sunna la suñ sopp waaye yeggul ci farata ñu ne sunna la ñu ngi tegtaloo waxi yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa jim wax biñ ko laajee ndax umra dafa war mu ne déeréet waaye su ngeen umrawee moo gën wa an taatamiru huwa afdal xadis ji tirmidi nee na wér na waaye imaam Shafii dafa lompañal xadis ji naka noonu ibnu abdul bar ibnu ak nawawi dañ ne xadis ji xadis la bokk na ci seeni tektalit yàlla ba muy wax farataay xaj ci surata ali imran boolewu ca umra daf ne walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabilan te baatu xaj ci alquran du yóbbaale umra su bëggee wax umra daf koy tudd niki nim ko tuddee ci baqara ne wa atimmul xajja wal umrata lillah kon laaya ji ci aayatu ali ci ali imran dafa leeral ne aj dafa war te tuddul umra laaya ji ci baqara nag nga xam ne groupe bu njëkk bi wettalikoo nañ ko li mu waral mooy motuk aj ak umra maanaam mot matal ko la waral waaye soobu ca warut boo ca xasee soobu nag matal ko war ndax waraluk matal firiwut waraluk tàmbali waraluk tàmbali kon dafay soxla dalil bu ko jagoo te foofu la xëccoo bi nekk waati atimmu alxajja umrata dafay wane ne mottali gi war na waaye wanewul ne tàmbali gi war na te xam nañ ne laaya jooju mi ngi wàccoon ca amal xudaybiya te atum juróom benn ci gàddaay gi boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci lool te dara nekku ca lu dul digle mottali aj ak umra ñeel ka nga xam ne soobu na ca wax yàlla ja nga xam ne nag mooy walillahi ala nnaasi xajjul bayti wala xijjul bayti man istataa ilayhi sabilan moom wàcc na atum juróom-ñeent mbaa fukk ci ñuy wax fukk te lim wax rek mooy farataay xaj tuddul umra kon ba muy wax wa atimul xajja lillah booba aj waragut bi aj muy atum juróom-ñeenteel gi walillahi ala nnaasi xajjul bayti bi muy tudd ponk lislaam ci xadiisu ibnu omar ci saxiixayn ak ñu dut saxiixayn daf ne buniya lislaamu ala xamsin shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa itaai zakati wa sawmi ramadana wa xajji beytillahi alxaram tudd umra ba ca des mooy yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallama bi amee ku koy laaj lislaam yonentu sallallahu alayhi wa sallam di ko leeral lislaam tuddal ko ponk ya mu ne ko wallahi la azidu ala hada wala anqus maa ngi wat ci yàlla ne duma yokk ci li ma wax ni dara duma ca wàññi dara yonentu ne la in sadaqa la yadxulanna al janna su fekkee lim wax dëgg la ci moom wat naa ne dana dugg aljanna te ya ko yonent bi limal ne ko ñooy ponki lislaam umra bokk ca kon daal mbokk yi umra ñaari position yi ñoo ci am ñii ne farata la indi nañ seeni tegtal ñii ne yeggul ci farata sunna la indi nañ seenu tegtal waaye ñoom ñëppit dëppoo nañ ne jaamu yàlla gu rëy rëy rëy la gu yàlla dëxëñ ay ngëneel yu bare bari yoo xam ne buñ ca dikkee dana tax képp koo xam ne mosoo umra da danga def lu nekk pour umra waaye képp koo xam ne umra woon danga it da nga di ko def ngir rëyuk ngëneel ak yi ngëneel sax yi nekk ci jaamu yàlla gi di umra mbokk yi hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala wa sahbihi wa sallama wa axiru daawaana an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 wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te woo si ikfa online arobas gmail point com ikfa daal yéex naa ñëw.